nee naa bi ministère du commerce accompagne nañu mooy ceeb mooy dëwlin mooy hein, mooy pat bi yëpp le ministère du commerce daf ñu accompagner ci lépp en terme de day def ay prélèvement am bu noppi joxe ñuy certificat de conformité donc amul benn produit boo xam ne distribué nañ ko te amuñu certificat le CUTIS le certificat de conformité bu nga xam le ministre du commerce joxewu donc loolu dafa nekk loo xam c'était systématique parce que dund goo xam ne da nga koy jël jox ko askan bi donc il faut nga assuré que ne li leen jox baax na te ah ba ñu ba fii ñuy toog amul kenn koo xam ni wax na lu au contraire nit ñaa ngi bo boo ci allu bi ñi ngi kontaan bo demee ci au ci dëkku taax ni ñangi ñaa donc vraiment loolu damay rassurer donc la population que luñu joxé ci dund dund gi joxé joxe dund bi seen seen maanaam dund bu am qualité la amul benn problème yàquwul xëy na nag am na yenn localité yoo xam ni maanaam ceeb bi dañ ko stocké woon ci ay magasin na Mbour par exemple Mbour xaw ma Mbour Oussali mu taw ci kawam mais ba mu tawee dañ ko remplacer am na fii ci mbaaw mbaaw je pense ba mu tooyee dañ ko remplacer donc lépp loo xam ne yàqu na par des intempéries wala ndox tuuru ci wala mu daanu affaissé wu dañuy remplacer quantité yooyu jox leen yeneen quantité yu bees tax donc loolu moo tax doo ci dégg wax doo ci dégg ceew te loolu bëriwul lu mu toll je pense ci riz motul ay 200 tonnes en tout cas mot motu ko je ne pense pas ça fasse ça fasse 200 tonnes motu ko sax voilà donc ça c'est important ma wax ko donc amuñu benn problème de qualité problème par rapport ak les produits